sëñ ñu ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi fay. tey nga ñëwoon fii ci li nga xam ne moom mooy inauguration train express régional gannaaw bi nga gisee les première images au niveau de Diamniadio président jóge fa jaar fi nga xam ne moom mooy Rufisque war a jóge foofu euh, tàbbi fi nga xam ne moom mooy gaaru ceer bu Ndakaaru loolu lan la def ci yow te jii. waaw defe naa mbégte la chaque fois boo nekkee si réew mu am avancement je pense ñëpp dañ si war a bég te seetlu naa ni que loo xam ne moom la ñu vivre tey avancement la si Sénégal. si dina a amal kii njëriñ askan wi na ñoo xam ne ñoo nekk si banlieue bi ah, ñoo ak ñoo nekk aussi jam ñaar Diamniadio Rufisque ba zone boobu yëpp ah, train bi moom moom lañ ko jagleel ñu ne leen mën a transporter indi leen dans des condition meilleures mais aussi ak ak rapidité donc dootuñu am coono yoo xam ne moom lañ doon jànkote je pense loolu rek mbégte la suñu ñëpp ñëpp ñoo xam ne ay doomu Sénégal lañ tout cas di félicité ñëpp xam ne jàpp nañ si mbir bi ba mu mën a yegg si tey si bés bi euh, bés moo xam ne bés bu mag la bon révolution la aussi si mbirum transport ferroviaire euh, c' est vrai que depuis indépendance amoon nañu fii ay chemin de fer mais yàlla gisoon nañu si at yi en tout cas les dernières décennies que mbir mi dafa xawoon na sooxee donc tey ñu dundalaat mbirum chemin de fer dafa naa mbégte la si ñëpp rawatina aussi ñu indi ci technologie bu bees lu mel ni Trek express régional di ñaan yàlla rek moom mu bañ a yem mu law si yeneen région yi si yeneen dëkk yi euh, pour que parce que boo waxee Trek express régional boo demee si dëkk yi mel ni France am na fi région yi nekk donc di ñaan yàlla rek aussi ñu lawal ko mu dem si yeneen région yi pour k mu amal njëriñ Sénégal yi mais monsieur le maire euh, coow li bari na trop te mu mel ni ba léegi jeexagul ci li nga xam ne moom mooy investissement bi ñu ci def ci euh, ci xaalis ñu bëri jàpp ne xëy na priorité bi du woon foofu loolu looñ ci mën a ban commentaire nga ci mën a def tey. waaw xam nga ni que man damay faral di sukkandiku si woy yu sunul boobu. Euh, ban diggante doom ji ak baay ja te mu waroon ci fas ba ci fas yi. Euh, mais dëkk bu ñu wax rek chaque fois bu ñu changé comportement nit ñi di am loo xam ne dañuy wax mais c'est vrai que am na ay priorité ça c'est vrai je pense que kenn mënu ko weddi mais aussi euh, booy jiitee réew da nga def ay choix quelquefois ay choix yoo xam ne peut-être que nit du ñëpp ñoo ki ànd euh, moom peut-être def na choix pour développer transport bi parce que peut-être que si at yi di ñëw nit ñi dañuy xam ni que peut-être peut-être choix bu baax la woon parce que déjà Dakar c'est vrai que booy jël ñun ñoo xam ne ñooy jël yoon yi xam ne ni nga xat na embouteillage day faral di bare di rëy ñoo xam ne ñoo dëkk ci banlieue aussi seen dañuy am jafe-jafe pour déplacer wu rawatina ñoo xam ne amuñu doole euh, et donc je pense que ñu defal leen jumtukaay bu mel ni amul njëg amuñu njëgam bon l'essentiel que mu amal njëriñ askan wi mais aussi ñu man ko rentabiliser investissement boo xam ne moo leen ci def nit ñi mën ci en tout cas gisaa seen bopp bu ko defee aussi ñu mën a lawal investissement bu mel ni yëpp si yeneen région yi mais choix bo mun ci def ñu ni bu ñu doon def euh, dans le cadre des travaux de l'ANOCI bu ñu doon def corniche bi ñëpp dañ naa woon du priorité waroon nañ jël xaalis bi yóbbu ko feneen ñu def beneen tey ñëpp gis nañ njëriñ bi gis nañ njëriñ bi da ngay jóge fële ñëw bu ñu defuloon je pense que investissement li tey je pense que jafe-jafe yu tar la nit ñi naroon am pour dem ba ay côté Almadies ou bien dem si banlieue bi mais rek dëkk buy développé aussi mais c' est vrai que euh, bon nit ñi amoon nañu ay loo xam ne noonu la am naa ci prix ci coût yi euh, dañoo amoon yaakaar ni que coût yi dafa xaw a donc loolu yëpp je pense que dëkk nañu ci dëkk boo xam ne euh, bu ñu defee lu mel ni ñu aussi def ay investi ay ay ay investigation def ay yon fa ay code de contrôle yi pour que ñu mën a wax nit ñi exactement Euh, euh, diggante rapport qualité bi ak prix bi ndax am nañu en tout cas ay jafe-jafe ou bien euh, si agent boo xam ne agent public la ça a été utilisé à bon escient je pense que loolu aussi mën nañu sukkandiku si si corps de contrôle yi pour que nit ñëpp mën ci am en tout cas une idée claire du coût mais aussi bu dee am na ay jalgati yu si nekk aussi nañ ko mën ko xam mais Euh, le fait que ñu am déjà lu ñu mel man rafetlu naa ko rafetlu naa suñu dëkk avancé ñu développé wu jógee ci biir stade dem ci beneen phase bi mais aussi dans la clarté et dans la transparence je pense que loolu am solo. am na solo monsieur le maire candidat nga woon à la candidat nga woon la présidentielle de février 2019 euh, laataa ngay renoncé wu démb rek euh, liste provisoire yi génn na cinq candidats moo ci des loolu ban commentaire nga ci mën a indi. waaw commentaire bu ma ci andi rek mooy que je pense que boo ñee nekkee si ci démocratie diisoo dafa war a am donc te diisoo boobu c'est vrai que amoon na le temps du dialogue mais aussi de temps boo xam ne dialogue bi weesu na c'est vrai que dugg nañ ci beneen phase phase boo xam ne candidature yi c'était totalement libre à une deuxième phase boo xam ne léegi parrainage donc parrainage bi pour waxante dëgg aussi amoon na ay rëq-rëq yu bare peut ay paramètres yoo xam ne bu ñu voté loi bi on n'avait pas bien analysé ces paramètres là moo amoon ay jafe-jafe yu bëre moo ren c'est vrai que mën nañu wax ni béy weenu mbuus euh, conseil constitutionnel tànn na déjà cinq candidats élection yi c'est dans un mois et demi ñu mënatuñu dellu ginnaaw di euh, euh, remettre en cause processus parce que sinon dañuy violer suñu calendrier républicain lu mën ci am rek mooy que ñu def analyse mais aussi jàngat à partir de l'expérience de ces parrainages pour jéem a améliorer système yi pour gën ko euh, rendre beaucoup plus transparent beaucoup plus fluide de telle que telle sorte ku ñu éliminer aussi doo am sikki sàkka ni que c'est peut-être c'est loo dossier bo indi woon peut-être dossier moo amoon ay jafe-jafe euh, parce que on aura mis des paramètres yoo xam ne day permettre ni ñi am aussi seen analyse personnelle mais dans la transparence et puis dans la démocratie man en tout cas loolu mooy sama gis-gis mooy que ñu parfaire gën a parfaire système pour la prochaine fois euh, parce que sinon toujours si ay jafe-jafe lañu nekk ay contestation euh, c'est vrai que politique ak contestation la àndal mais je pense que boo tolloo si beneen niveau bi en termes de démocratie aussi yeneen coow yu ndaw yi dañ ko war a dañ ko war a weesu yaakaaroon ni invalidation candidature Khalifa Sall ak Karim Wade ñu def ko au dernier moment nekk loo xam ne ñu bëri daan nañ ko séntu ñu def ko mënul jaxase xelu nit waaw xam nga politique comme ni ma ko waxee rek euh, réalité bu tey bi ak bu débat bi dafay faral di wute c'est vrai que ñu bëri ñu ngi doon laam laam ne ni que sur le plan juridique parce que aussi boo nekkee juriste euh, man mi juriste laa donc je mais. mbirum droit ku nekk parce que foo mën ci toll rek mën nga def ta interprétation interprétation bopp dafa amoon benn gëstukat dafa noon ne le droit est une de de tissu nga xam ne ku nekk tailleur la da nga da si mën a ñaaw benn yére euh, kii ñaaw si benn euh, xaftaan bi ki ñaaw beneen en tout cas mais si benn matière bi euh, parce que ay problème interprétation la donc pour Karim Wade donc je pense moom Khalifa Kall peut-être que seen ñaari dossier dafa xaw wute parce que dañu naan nit ki bu amee condamnation définitive euh, bon aussi am na ay ay ay ay kii yoo xam ne ay point yoo xam ne loi bi daf ko daf ko junj ak pièces yoo xam ne yom moom nga war a fournir pour que nga mën a nekk candidat yooyu yëpp bu ñu defee analyse bi je pense que ñaari dossiers yi c'est différent parce que Khalifa Sall mënoon na am. Euh, ba parce que bindu na ci liste électorale yi ba pare am na casier judiciaire bu vierge parce que ba buñ koy condamné dernièrement sa condamnation n'était pas définitive donc tout le débat c'est autour du rabat d'arrêt ñii ne rabat d'arrêt bi c'est suspensif ñii ne c'est pas suspensif moom conseil constitutionnel dem ba joxe verdictam man damay xaar bu gis vraiment considérant conseil constitutionnel bi pour xam ci lan la sukkandiku pour éliminer bi ak bële candidature pour que ñu mën sa prononciation mais loo naa l'autre euh, mooy que ñu gën a jàngaat si loo xam ne vivre nañ ko si mois yi pour gën a parfaire suñu système bi pour que bu déwénee bu bu bu en fait prochaine fois ñu mën a amati yu mel nii contestation yu mel nii loo xam ne. dafay mel ni que ñii dañ leen beddi si si si compétition bi ñii ñu bàyyi leen ñu jàll. Euh, dañuy teral ay critères yoo xam ne dañoo war a teral yoo xam ne vraiment ñëpp si d' accord bu ñu demee euh, ba si coppaandaw ba ñu mën a tànn ay candidats yoo xam ne du am benn sikki sàkka leneen loo xam ne moo koy déploré mooy absence jigéen ñi si biir carte parce que cinq candidats amul benn jigéen donc loolu defe naa cinq candidats amul benn jigéen dama am loolu vraiment. pour man recul la parce que moo ñun voté nañ fi loi sur la parité wax nañ ni que jigéen ñi war nañu am seen place bon lu mel ni Sénégal ñu am cinq candidats yoo xam ne benn jigéen nekku ci vraiment man loolu rafetlu moom. merci beaucoup merci beaucoup merci